mbokk internet yi nuyu nañ leen fa ñu leen daan nuyoo waaye fekk ngeen ñu fi ngeen ñu daan fekk site bu mag bi réew Média Buzz SN mbokk yi place bi ñu nekk nii maanaam bërëb bi ñu nekk nii fi la jéyee ci xewe woon fi la miir bi daano woon di Kër Ñang tey ji nag ñu fas yéene leen ci defal reportage euh, ñëwaat fi gannaaw bi taw bi jàllee fas yéene leen na wan euh, lieu bi maanaam bërëb bi ak euh, ni nga xamante ne moo di ndox mi Euh, ni ko nit ñi dundee woon euh, ci li nga xamante ne moo di euh, taw bi jàll ñoo ngi massaw ñi nga xamante ne daat nañu ci mbokk ñi nga xamante ne daat nañu ci ñàkk seen bakkan di ñaan sunu borom yërëm leen te xaar leen aljana firdawsi Seydina topp ma ñu bañ a yàgg ñu daal di dem mbokk yi nuyuwaat nañ leen joxati nañ leen seen wàccuwaay di leen waat bu baax a baax bâtiment bi sama ginnaaw ngeen gis. mooy bâtiment bi nga xamante ne bi mu tawee taw bu metti bi eh, ci la jéye ji amee woon am ñu ci blessé waaye am ku ñu wax ne dafa ñàkk bakkanam loolu nag doon lu méttee métti waaye ku xool bâtiment bi xool ndox mi nga xamante ne moo ne ci sunu gannaaw waaye jóge ci kanaal ba ci côté kanaal ba direct xët suuf si. jaar ci biir di jàll mbokk yi ku ne xam na ne fii taxawaay yi fi war a am des na de des na trop ndaxte boo gisee ndox mi doole ji mu am ba yow mi xuus ci diggante ndox mi di jàll da ngay gis ne boo amul doole tuuti rek ndox mi dana la dana la yóbbaale waaye mbooleem ñi nga xamante ne ñoo di ay autorité nekk ci réewum Sénégal nañ gën a jëlaat seenu matuwaay gën di alerte it ki nga xamante ne moo di président jomay fay ak premier ministre am di Ousmane Sonko di leen wax ni fii jamono ji tembe mat naa lijjanti maanaam mat naa bàyyi xel ndax fii fii ma ñëw nii tey jii euh, boo ñëwee ba teg sa bët di nga gis ne ay taxawaay pour l'instant nii nii nii nii nii war na fee amee ndaxte fi ndox mi jaaroon ba jàll da nga gis ne ay kër ñu ngi dend ak moom ba léegi te gis nga ne kër yi dend ak moom ak ak ak ak ndox mi nekkuñu ci sécurité wax dëgg yàlla doon loo xamante ne bu ci état gënoon a mën a euh, jàpp gën a mën a yokk taxawaayam jamono ji tembe dina baax ndax gis nga ndox mi Seydina ni muy ballee nii wax dëgg yàlla xaw na doy waar kon Seydina da ngay taxaw noonu rek ma jàll ci kaw nga zoom ñu wan askan bi ñu wan askan bi euh, fi nga xamante fi la Euh, jéeye ji amee muy fii ñu taxaw nii bâtiment baa ngi nii boo xoolee ñu ngi mu ngi doon benn terrasse ñu seng nii ci kaw yéen a ngi gis waaye xaaj bu njëkk bi moom la moo daal di wàcc waaye nag boo xoolee jëmmi dal bi dëgg-dëgg danga gis ne côté bee dal bu yàgg-yàgg la ñu jëlaat leneen teg ci kaw aussi war nañ cee war a mën a gën a euh, bàyyi xel surtout nag ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci dë ñoo ñoo dëkk ci dë dëkkuwaay yi euh, yenn tabax yi buñ koy tabax surtout maçon yi kuñ ci woo di la tabax loo bu bu ko attunut ngalawaay di ko attunu ko ndax lii ay ay loraange rek lay jur Seydina zoomal ma zoomal ma batiment bi bii ni mo gis nga ni mu ni mu xaree nii ak ndox mi ni mu amee doole bu ngeen gis ne doole ji bari na lool te wax dëgg yàlla mboolem ñi nga xamante ne wala boog ñenn ci ñi nga xamante ne dëkk ñoo ngi ci gox bi euh, nekkuñu ci ci ci ci sécurité. wax dëgg yàlla lii war a war nekk taxawaay boo xamante ne urgence la léegi léegi léegi léegi léegi lañ ko war a def warul am xaar seen naa bu ngeen gisee ndox mi doole ji nga xamante ne am na ko ministre bi ñëwoon na fii démb wax dëgg yàlla taxawaayam bu yaatu boo xamee ne amee na ko ci askan bi tey rek bi may déglu discours bi mu doon discours bu ama am solo wax dëgg yàlla mu ne bu ko jot gi mayoon dëgg-dëgg mooy ñu ànd koog yéen ba mu jeex waaye ak euh, bépp taxawaay dina ko ame ba mu mat sëkk sëkk Seydina ñëwal nii tuuti ñëwal nii nga zoomal ma biir kër gi fii la jéey ji amee fii la nit ki ñàkk bakkanam nekkoon waaye fii la fii la ñi nga xamante ne ñoo blessé fii lañu ñu mu doon mbir mu toyo doyo doyo war doyo war jëlal ma nii ci kaw li ma leen waxee la gis nga dal bi nii fii boo xoolee dafa mel ne lu màgget dal bi dëgërutut gis nga mi nga mel ne luy xobbeeku nii gis nga kon yii nañ ci jël matuwaay di ci bàyyi xel bu baax a baax yi wóorul yi wóorul buñ dee tabax nañ nañ saytu ba xam li ci kaw dana buñ tabaxee ci kaw dal bi dana ko attan wala du ko attan waaye engagement bu ñu ñemee engagement bokk na ci Seydina da ngay gis koo xamante ne dina dina tabax kër fukki at bëgg ñëw bëgg a dolliwaat leneen ci kaw xeeti engagement yooyu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax bakkan dafa foor surtout borom kër yi yéen laay waxal bëgg lu yomb wala bëgg lu euh, moyen bu tax nga def loo xamante ni ëllëg dana lor bakkan parce que la ngay def jàpp ne looloo gën a yomb ci yow te it looloo gën a moyen cher ci yow jàppal ne loolooy gën a moo nekk la li gën a doon dansé ci yow parce que fii ci Sénégal man fii laa gisee nit koo xamante ne mën naa jël un million def ko ci kër exemple mën na jël un million def ko ci kër wala mën naa jël 20 millions def ko ci kër problème mu 200 euh, mille yàq kër gi kon yooyu nañ koy mat lu mat di bàyyi xel la waaw wax dëgg yàlla euh, nit ñi nañuy taxaw seen bopp laata état di leen taxaw parce que taxaw sa bopp mooy nga gis ne lii warto war a mën a nekk ah dinaa ko muñ ko tabax sama ñaari nekk ak seng ba keroog ma koy man waaye da ngay gis koo xamante ne diw tabax na terrasse rek dinaa tabax terrasse ne moom. Euh, ba tax na nga nga bëgg ko ñab ñabal dëkk ca ndox mu mel ni ñëw rek jaar fa wàccee ko yooyu ñu koy mat di bàyyi xel li am nag am na ba noppi ñoo ngi leen ñaan ñaanal ki ci ñàkk bakkanam sunu borom yërëm ko te xaare ko aljana ñi nga xamante ne it euh, ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yàlla na leen sunu borom yëkkati ci barke Seydina Muhammad waaye it waaye jur ñi nga ki nga xamante ne ñoo moo ñàkk bakkanam wala ñi ci ñàkk seen bakkan euh, seeni way jur yàlla na leen yàlla jox xolub muñ sànq rek bi ñu ne cëpp ci koñ bi ñu ngi ñuy wax ne am na ku courant jàpp fii ci ndox mi ba mu wàcc ba mu ñàkk bakkanam fii xam naa danañ fa jéem a doxantu léegi jéem a euh, gëstu information boobu léegi nii rek lañ ñu ko signalé am na ku courant jàpp ba mu ñàkk bakkanam ba dem nañ jëli koor bi loolu nag nekk lu doyo doyo doy waar kon mbokk yi lii lañu ñu leen indiloon fii ci diwaanu Kër Ñang waaye fii nga xamante ne fi la jëye ji xewee ak sëñ Modou Lo Seydina Buzz SN Rewmi Média mbokk yi duñu tegg suñu tànk benn yoon danañu ànd ak yéen wan leen roq yi ak roqaay jëf. ok Baye ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. jëye ju toll ñi am fi ndax mën nga ñoo dikkaatal ci mbir mi. ah mbir mi ñoo taxaloon nii maa ngi moom moo bâtiment bi moo daanu ci sama mu mu mu kii mu toj ci suba gi rek ci suba gi la suba teel gi daal ci la daanu. waaw bi mu tawee ci guddi gi daal ba ci suba teel gi ci la daanu bi muy daan nag am na maanaam ay nit ñu nekkoon ci ci ci fii mu daanoo ak ak ñi nekkoon ci kaw léegi nag ñu nekkoon ci kaw moom ndax euh, ñaar lañ maanaam ñi koy def daal dañoo xëyoon ba ñu xëy nag kii gaañu nii moom yee nañ ko rek yee na ko nekk ñu xëy mu ne moom yaakaar ne du xëy tey loolu ci li ñu wax waaw rek moom lii la doon nekk. ki di xëy gannaaw gi gannaawam rek kii bi daanu bi mu nag maanaam eh, am na am na kuñ ci génnee koo xam ne kooku nee ñoo bokkoon mat la buñ tëdd waaye bu kooku génnee sax la ne kooku ngi ci biir ñu def ne nekk ci waaye nekk mu ngi ci biir mu ne mu ngi ci biir gannaaw bi lañ gis portable bi gannaaw bi ñu nekk ci maanaam waa koñ bi jëkk génn ñooñu waaye sappoor yi mu mujj génn ki gaañu moom. ki gaañu moom sappoor yi fekk na ñu ñëw bokkoo mbooloo mi ñu génn ko waa koñ sapeur dañoo yéex a ñëw waa koñ moom ñoo ñoo ñoo ci nekkoon ba génne ñaar ñooñu mucc nañ waaye ki mujj génn nga xam ne sapeur yi ak si soog a agsi ba daa faatu moom moo ci faatu da nga benn tukkuloo loolu bu nekkoon fii ci Fuuta dañ fi doon liggéey si rek jaayi dàll ak ak ak ñooñu ñaw dàll yi ak jaayi dàll ndox mi fan la bàyyi ko ci kanaal bi la bàyyi ko wala ci. bàyyi ko ci canal bi ndox mi boo ngeen continuer mm. ba ba ba ba jeexal jàkk fii baal bi ngeen topp seen càmmoñ da ngay gis maanaam régal bu muy génne ab fii daal ñun ab régal dafa nekk boo xam ne bii daal dafa tijji rek ñu dindi ko béer ga te nanguwuñ koo tëj digganteem mën na cinq quarante kilomètres wala cinquante cinquante wala wala quarante mën na ko mm. mën na ñeent fukki wala wala juróom fukk. yoo xam ne nii du egg ci canal ba day ci ci régal bi rek lay jaar mooy ñëw fi moo yàq fii yëpp moo ko def nii musiba mu fi am canal boobu moo ko régal boobu moo ko te moom kenn du ko tëj kenn dégguma kenn di ci wax ne ndox mi ci biir ci biir dëkk bi lay bàyyi di jaar ci di jaar ci régal yooyu. te dem te dem mbasee bee ñuy wax di mu ci de ndax eggu ca kubéer gi kubéer gi kubéer kubéer régal bi nga xam ne moom leen tijji. digganteem ak bassin mën na quatre mën na euh, quarante mètres wala cinquante mètres mën na ko digganteem ak bassin bi nga xam ne daa war na continuer dem ca bassin ba waaye dañoo tijji kubéer googu ndox mi du yegg ca bassin bi ndox mi day day day day jaar nii rek di xotti moo xotti fii ba mel nii. Euh, jërëjëf euh, Baye wax dëgg yàlla leeral yi am na solo lool ngeen dégg ni ma ko waxee rek benn tiyo bu mag boo xamante ne moo jóge ci dëkk ba waaye bii mu ñëwee am na benn daal fu ndox mi di ballee foo xamante ne. Euh, ndox mën na mi ballee mettiwaay bi jéggi na dayoo mooy waral nag ndox mi di jàll di ronu euh, kër yi di jàll ko ne xam na ne ndox dafa am doole lenn rek ci li koy firndeel mooy reportage bi nga xamante ne doon nañ ko def bémb ndox mi boo gisee ni mu jaar ci peggu tali bi daf ko xotti euh, am na ñu fa nekk ñu wax ne bu taw bi yàggantu day day day day dagg tali bi kon noonu ko kilifa gi waxee rek wax dëgg yàlla matuwaay yi nga xamante ne it euh, mairie Abdou Lahad Ka ki nga xam moo jiite mairie bi muy Abdou Lahad Ka euh, wala it Cheikh Tidiane euh, Dièye ba ci président Diomaye Faye premier premier ministre Ousmane Sonko ñoo ngi leen ci tàllalaat loxo bu baax a baax a baax a baax lii ni ma ko waxee léegi rek nekkut loo xamante ne jàpp nañu ne loo mën a xaar la ndax aw askan ñoo fi nekk miir bi nga xamante ne wala kër gi nga xamante ne lenn ci kër gi moo daanu am nañu sës ci kër gi wax dëgg yàlla. Euh, saa su nekk seen xel du dal benn yoon ngir ne ñu ngi bàyyi xel bile miir lii nag bu fekkee dañ koy daaneel wala ilaa taxawaay buñ ci war a mën a am nañ ci gaaw ndax wax dëgg yàlla métti na métti du jéggi dayoo Seydina lii lu ñu leen indiloon maa ngi lay faat maa ngi leen di faat joxaat information ne am na ku ñu tàggee léegi fii ne dafa ci liggéey courant bi moo ko maas ci lee bi la loolu ñu gën ko bàyyi xel bu baax a baax a baax te ñaanal ko suñu borom yërëm ko ñi nga xamante ñoo yor courant bi. nañ ñëw ci secteur bii jéem a lijjanti courant bi ndax nee am na ko fi courant masse loolu lañ ma wax léegi ni vérifié guma ko nag wax dëgg yàlla waaye bu ma jógee fii bu soob yàlla dinaa dem laaj ci fan la ñëw fa léegi lañ ma ko wax bi ma ne cëpp ci koñ bi kon loolu ñi nga xamante ne ñooy ñooy Senelec nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax fii ndox mi bari na fi lool te buñ sàgganut dina gën a lool nañ ko bàyyi xel jaa ngeen jëf